confiance googu nga am ci moom est-ce que mën nañu wax ne ñëpp ci parti bi am nañ ko ci moom parce que euh, dañ ko ne euh, bàyyi nañ la jox la carte blanche mais actes yi gars yi posé après euh, xaw na waroo ak loolu parce que les candidatures se déclarent un peu partout dans vos rangs waaw man xam nga ku mu neex nga ne candidat mais dama ne la am na loo xam bu ko xel mee war mayu ko ndax dama ne la création APR 2009 2010 2011 ñi taxaw tey ni candidat xamoon nañ leen. Mm-hmm. ñoo am na ñoo xam ne moo la jox nombre tànk. jox leen ba nu ràññee leen. Mm-hmm. am na ci loo xam ne nan ko ko may xam nga candidat la taxul nga gañe taxul nga nekkin wax na te yow mi taxoo ne candidat nga ndomb tànk yam la ba tax sénégalais ràññe la moo tax nga ne candidat nga nan ko may ngir yàlla mu xool te góob ma ni dina poser acte boo xam ne du jëm dans le sens de développement du Sénégal man am naa ci moom yaakaar te lu mu def nag ànd naa ci ci télévision laa waxee. Mm-hmm. keneen koo xam ne nag. da ngay def leneen yow lay conseil am nga candidat yow jamono ji ci aparté bi koo xam ne jàpp nga ne xëy na mooy meilleur profil bi. président Macky Sall. mais moom nee na bokkatul. waaw moom laa moom laa xam nga lu tax mhm. moom parce que lecture gi mu am mën na am dama ko am ba tax na ni bu demee ba toog ni ni diw laa tànn. damay jàpp ni loolu mu ko teg am na ci ay critères d'évaluation parce que mu ko xee ba léegi mi ngi seet mi ngi xool parce que xam naa teg na HLM. na mais justement mi ngi bëgg a yàgg ah. c'est bi la. wala profil bi la amul. dafa yombewul noonu xam nga foo xam ni li naan boo tànnee dara rek di nga renoncé. Mhm. boo tànnee bu tànnee. choisir c'est ne bu tànnee da ngay gis ñu bàyyi. Hmm? waaw dañ. ay kàngam bi appel waay waay fee feeñagunu feeñ. jëloon feeñ. li nga wax ni doy na waar. non man li may wax dama koy wax télévision am na ñoo xam ne fi nekk nii dañu dañu dañu làqatu mais président bi ma ne la négal bu tànnee nga xool. ñi nga xam nag ñoo dëggu. Mhm. bu tànnee ñooy ànd ak moom. accepté ko accepté ko qu'il pleuve ou qu'il neige parce que am na loo xam ne bu ko xel mayee ngóor mayu ko. maanaam li nga bëgg a wax mooy tey jii nii euh, renoncement président bi mën na xam nga xam ne dañ ko gëmoon ak opportuniste yi. xam na ko ràññeen na leen bu baax a baax a baax. opportuniste yi munoo nekk président te loo xam te nga am renseignement yu doon xam ñëpp xam nga am na loo xam ne tuddoon nañ ko fi. Mhm. tudd ci ay téléphone. man bi ko xëy dama nekk à parce que woo ma kenn. xam nga ne bokkoo ci. waaw du ci bokk parce que dama ne la man valeur yi ma gëm ak ni may doxalee bu fekkoon ànd moom fii laay taxaw wax ne moom mais li gën a ci àdduna mooy ñoo xam ni bu ñu football tey dañuy nekk milieu terrain gannaaw suba ñu nekk góol gannaaw suba ñu nekk latéral doo leen mën a. nit yu mais nanu am ngoru nanu am ngoru. Mhm. te gore ni ko ah sàngam boo koy def ànd ak yow et puis moo gën a yomb moo gën. ngay doxalee noo xam ne xam nga ne la ngay dogg ci yow pour bu ëllëgee nga ko gannaaw. Mhm. mais est ce que doon conséquence ci seen candidature en 2024 maanaam euh, bu ngeen par demee en rang dispersé. Hmm. ak opposition bi ñi nga xamante ne ils ont repris du poids de la bête comme on dit est ce que l'APR ne risque pas de perdre le pouvoir. fi mu euh, <laughs> que au moins euh, président bu tànnee dina ci jàpp. Mhm. dina ci jàpp mooy am na expérience. ci état am na expérience ci président dina mën a am lu mu accompagner euh, ki muy ngem parce que jàpp ma ni dina ngem nit pour mu daanu. Mhm. léegi nag li ci nekk mooy sénégalais yi xam nañu kenn mënatu leen nax kenn mënatu leen nax am na ñoo xam dañ naan kan daananu mais dama ne la ci parrainage bi ngay xool. 50 mhm. yi nga wax dama ne la bu nee ci biir 30 doo ci dégg 30 doo ci dégg 40. parce que euh, am na ci loo xam ne mënta nekk. Mhm. li am solo daal man confiance ga ma amoon ca moom te résultat yi mu def wan ma mu doy ma tey laa ko gën a renouveler sama appui te lu mu jël si ci laa ko gën mën a défendre ah,